dara tax maa jóg lu dul def te yàlla tax ak jox nit yi seen àq ak yelleef loolu moo ma tax journée de l' excellence bi comment dire weekend de ko waral waaw weekend de l' dañu amee fondation fondation ñu ngi ko tuddee one thousand of red ñu yàgg di def lu baax di yàgg ci œuvrer dans le social ñu gis ne tamit macha dafa am nit yoo xam ne dañu baax nit yoo xam dañuy yàgg di def social mais kenn du leen fësal mais su fekkee ne leneen la ñu fësal ko te dañu gëm ne sa tànku tey mooy sa ndono ëllëg te man damaa jur macha allah ay njaboot dama bëgg ëllëg référence yi dootul nekkati ñeneen mais ñun ci suñu biir ñu wane tamit ñiy def lu baax donc si loolu moo tax weekend de l'excellence ñëpp koo xam ne ci àdduna képp koo xam ne yaa ngi dox ci ak yelle ak doomu aadama képp koo xam ne yaa ngi dox si humanitaire yan képp koo xam ne aussi yaa ngi dox si leadership parce que leadership mooy gëm sa bopp mm-hmm. donc loolu moo tax yooyu ñëpp la ñuy màggal si kattanu yàlla parce que lépp tamit dañu si def ci def te yàlla tax parce que yëkkati doomu aadama doo xam fan la demee démb wax naa ko Nations Unies am na benn année boo xam ne dafa am benn femme boo xam ne dafa ñëw dugg fi ma doon liggéeyee ma topp di wax sama wax bari trop ma naan ko danga rafet yow danga nit ku baax nga faalewu ma mais bi nga xamee ne jënd na li muy jënd ba pare mu ne ma yow danga maa sauvé ma ne ko lu tax ma somee mu ne ma sama àdduna fa tukki yu bari dal ma ma naroon na dem rey sama xel mais ci yoon bi maa ngi naan yàlla won ma signe pour wane ne sama sama àdduna fa am importance mm. donc signe boobu ne na man sama wax ju bari muy signe boobu parce que yëkkati naa ko wan ko valeur ci loolu nag laa juré ma ne man mu neex nit mu naqari nit naa yëkkati doomu aadama valoriser ko ba nga xam ne na xam ne fu mu mënti nekk doomu aadama dafa foor ndax yàlla suñu borom création bu divine la def si ñun donc loolu moo tax gala de l' loolu moo tax nag ren ma def ko weekend de l' excellence parce que after Covid def nañ deux ans def na ko ñu boole si nag ñu bëri ñoo xam ne macha ci adduna bi boole ci nag ñun suñu dëkk Sénégal ñu boole si ñun. d' accord moo tax ñu gis le premier euh, Ngoné Ndour ak euh, Mo Diess. waaw avant waaw loolu avant Ngoné Ndour ak Mbongue dama si jiital sëñ Muntaxa Mbàkke sëñ démb Nations Unies sëñ Muntaxa moo jiite parce que Mbàkke Balla ay sax maaram li ñu defal si Covid bi leadership bi ñu ne Covid dugg na Sénégal mooy njëkk a yëkkati xaalis teg si sëñ Muntaxa ñun tey ñi nga xam ne ñun dañ ñun ay ndawu sëriñ Tuuba def social daf ñoo wan yoon bi donc ci loolu moo tax démb ñu njëkk a ñu pareeti tamit primé suñu bàjjan muy soxna Baali mu taxaa mm. nga xam ne sancaan yi Touba ku xam pauvreté level bi nekk ci sancaan yi soxna Baali mu ngi liggéey liggéey am solo donte munoon nañu ne soxnaay xalifa bi la donte ñu ne mën nañ ne mbàkke mbàkke la mais moom sociale bi muy def si biir soxna Baali ngi ci taalibe yi soxna Baali ngi si jigéen ñi soxna Baali ngi ci daara yi te loolu yëpp fas fas cachette boo xam ne ñun dañ koo bëgg fër fësal pour wan ñëpp ne def te yàlla tax dafa am donc mu boole si ñu boole si aussi ku mel ni Adja Ngoy Fall moom tamit macha allah bi ñuy def defte yàlla tax un million de kaamil pour les daara du Sénégal moom tamit macha allah suñu cinq cent mille kaamil yi daf si jàpp donc ñu boole si aussi ñu bëri ci loolu nag mënuma wax un million de kaamil te santuma nag macha allah Serigne Bara Ndiaye Mm. ndaxte tey ñun suñ ko mënee mooy suñu coordinateur muy représentant def ko yàlla tax il a sillonné tous les quatorze régions du Sénégal dem ci kër kilifa diine yëpp ak yëpp ci loolu yëpp ci supervision wu Adja Maguette Wade donc tey lii du man dama am team te sama team macha allah ñoom tey ñoo ma ñoom sax ñooy samay patron man daanaka daal sama vision la am mais ñu gën ma bëgg lii donc si loolu la. question bi nga ma laaj nag Tata Ngoné leadership féminine parce que dama gëm jigéen da ngay gëm yàlla gëm sa bopp jullite na gëm na boppam ba pare mu ngi won góor góor ak jigéen ka ne leadership dafa am solo te loolu moo tax moo géet nag moom jeune la am xaalisam mais mënoon na jël xaalisam di ci fo mais moo géet daa daara yi fii man parce que man li may wax nit ma man nangu naa ko ma nax mais nax ma si sama borom nax ma ci gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam nax ma ci sama mhm. donc foofu rek man la laa gis si nit xooluma luxe xooluma daal ci loolu laa jàppee ma te moo gën li mu def ci këru diine yi li mu def si daara yi li muy def si maternité loolu moo tax ñëwati encore ak sama partenaire muy góor gi si jeex gi depuis daaw muy Covid bi muy metti fi Sénégal yi dafa yëkkati xaalis bu takk jox ma ñu pareeti si loolu mu ànd ak man jox ma oto lépp na ma donc mu góor gi mun ko fay don de sang le 20 juin bi passé deret amul woon Sénégal don de sang bi mu jàpp ñun ñaar ñu def don de sang bi donc lu ma toujours mën naa bind rek wax rek mu jël ak ku lim juum mais moom Sadio ñun dañoo dem ba Bambali li may wax ñun parce que dañu am team donc fu nekk la ñuy dugg biir Sénégal su ma la waxee ñun li ñu xam biir Sénégal danga naa déedéet te pourtant demuñu donc Sadio Mané li muy def biir Bambali loolu moo tax du football bi mais humanitaire yam loolu moo tax ñu def loolu ak ku mel ni Abdourahmane Baldé Doura nga xam ne ñu ko woowee ne ko bureau social am na te ay kamoolay ak marque salaamam fu nekk mu dugal fa donc ñooñu du tur mais fi ma leen nawee mooy def te yàlla tax li ñuy liggéey mooy yàlla tax waaw donc leadership si loolu aussi la ñu jël aussi même chose suñu suñu parrain officiel moo nekkoon mu jàpp si bés mu mooy Mouhamed Askiatou donc daal lii moo waral bokk na ak suñuy partenaire fii aux États-Unis ndax suñu fondation dafa am accréditation White House la Maison Blanche award yu bëri démb ak tey président Joe Biden moo ko si te loolu yëpp du suñu ngóor loolu yëpp tey macha allah borom kun fa yàq. Ah, d'accord kon ñu ngi leen déjà ci initiative bi nga xamante ne moom ngay def noonu léegi en tant mois de la femme léegi lan ngay gën a conseil sa moroomu jigéen ñi nga xamante dañoo bëgg a mel ni yow te mu tëleen wala ñuy am ay jafe-jafe. waaw balaa may wax ci mois de la femme bi dama bëgg am benn conseil bu may waxante jigéen jigéen. suy yàqulee moroom jigéen moo koy yàqal mm. waaye jigéen suy defarlu moroom jigéen moo koy donc ci loolu may sant sama doomu ndey bi muy Aminata Sy ma jaral mu jóge ba Sénégal not only that xam nga olof ñaay def ne ku lay ñeedu la may ku lay ñeedu la dolli paas bu cher ñëw bien vrai que moom aussi ci coordinatrice général ci fondation bi la bokk mm-hmm. fu nekk la ñuy mais dafa ñëw aussi yëkkati aussi alalam ñëw teg si mais ma bés bi duñ ko cofantal ñu ñëwati tamit suñu maire bi maire bu baax bi jigéen ju gëm boppam muy tata nga xam ne moom mooy maire Almadies di dox ci social di dox si lépp moom tamit bàyyi léppam ñëw ne Didi dama lay jàppale donc tey lu ma mën tey du man mais tey ñii dañ ma dooleel dañ ma taxaw te loolu l'union fait la force dañu bàyyi jalousante bàmmeel dafa xóot nañu ànd te yàlla tax donc loolu premier conseil bu may jox jigéen ci parce que affaire bi que affaire bi du or du jamaa du dara affaire bi mooy bëggante te yàlla tax wan suñuy njaboot que lu baax wan leen aussi suñu seen tànk wan leen seen doom léegi question bi nga may wax euh, conseil bi ma mën a wax jigéen ñi mooy foi gëm yàlla man sama sama sama sama secret lu leen la dul borom kon fa yàkkoon mm. yaakaaruma kenn ku dul moom te it awma kenn ku dul donc mooy gëm parce que soo gëmee yàlla après di nga man mii di wax ak yow soxna si pour saa yëre la waaye des fois su ma bëggee def dara damay ruus sama borom ma su ma bëggee tey def sama moroom keneen lu bon damay fàttali sama borom te macha tey jigéen da nga war a gëm sa bopp jigéen da nga war a takk sa kumba liggéey jigéen da nga war a xam parce que soo juddoo sa yaay xasloowu la sa papa xasloowu la am na loo war a jox donc sama morom mu jigéen ma leen di wax ne nañu fas nañu am foi gëm yàlla wóolu yàlla takk suñu kumba te liggéey conseil boobu soxna si gërëm nañ la sant Sénégal seen liggéey rafet na ñun ñi nekk fii duñu tëdd wala ñu google te ubbiwuñu Sénégal ay nit yoo xam ne tamit site boo xam ne am ngeen jom am ngeen fulla am ngeen dara seen site bi mën na dem ba dépassé CNN da ngeen koy gëm wóolu ko donc bu leen taxaw fii bëgg naa beneen yoon déwén su ngeen di ñëw dama leen def challenge déwén su ngeen di ñëw bëgg naa ngeen dema suñu télévision taxaw la taxaw dama suñuy suñuy wax ma daal ngeen dem fu kaw yéegal man daal waa Sénégal challenge bi ma leen di wax mooy yéegal leen baar bi